bis ni ki tey duñu nangu kenn di yëkkati ay kàddu yu dul dëgg di ko teg ci ndodd Serigne Gueye Diop yi lay kàddu la adjoint au maire bi di Mouhamed Faye ak yenn conseil yi nga xamante ne nii moom lañu àndal doon yëgle ci point de presse bi nga xam xamante ni ñu ngi ko doon amal. ñun Sadio doot ñu nangu nag kuy dugg ci ay télé wala ay rajo di wax ci ñoom lu ñaaw ku ko waxat nag fii nga ñuy fekk nag ñu ngi ko koy wax sax moom ci boppam ndax nag yoon bi yàlla dëkk bi am na yoon nag waaye ku doxalu yoon nag dañ laa war a teg ci yoon nag. jël nit nag ci wax ci moom ci lu ñaaw nag ñàkk topp yoon la. li jëm nag ci ki nga xamante ni moo ko war a dond ci place mairie boobee gannaaw bi nga xamante ni nii démissionné na ki nga xamante ni nag mooy adjoint maire bi ak ñi àndal jàpp nañ ni daal dañu war dem ci élection ndax noonee la ko loi bi waxee. kon dañu jàpp ne nag ci li ñu gis ci ay texte nag amul benn texte loi bu ne bu maire bi génnee dañuy woo conseil ñu fal ko ñun li ñu jàpp mooy maire Serigne Gueye Diop démission bii ki koy remplacer. waa Sandiara ñoom ñooy taxaw tànn leen ku leen neex ne leen yaay suñu maire loolu lañ jàpp. ci loolee sax ñoom ñooñu sax dikkaat nañ ci wàllu fonctionnement mairie bi ñoom nag sax li ñuy xamle mooy instant yi lépp ngi gongo te amul benn problème mu salaire foofee. je pense que le secteur municipal déjà fay na gars yi ku ci amoo retard u kat yaakaar na yaa ngi ci ñett ba ñeenti salaire yoo fayee ko ba pare kon loolu amatul retard bu dee étudiants yi seen mandat yi defar nañ ko. ah leneen ak leneen aussi ñu ngi koy def bu dee service technique yi saa boo fi ñëwee ñu ngi fiy liggéey ah n'est-ce pas euh, état civil bi boo fa demee loo fa bëgg nga am ko ah donc euh, muy les partenaire ñu ngi ñëw ñu ngi leen di recevoir ñu ngi wax ak ñoom di leen orienter di leen guider. kon où est le blocage. gannaaw nag coow li nga xam te ni nii doon na yëngu jamono ji ci département de Mbour ak li ko war ci jëm ci démission wu ki nga xam ni mooy Serigne Gueye Diop ñoom conseil yi nga xam ni ñoo faroog maire bi nag doon nañ organiser benn point de presse ngir indi si ak leeral daan nañ ci aussi pëtëxlu ngir rek rafetlu nomination bi nga xam te ni kii di Bassirou Diomaye Faye daal dina koy def ki nga xam ni mooy seen maire bi di Serigne